effectivement Mamadou Awa bon ñoo ngi rafetlu vraiment démarche bi nga xam ne l'actuel régime ñoo ngi ko teg pour lan la réforme de la justice ndax bëri na yëngu-yëngu ay ay mbir yu bëri yu doon xaw ci biir justice yi nga xam ne dañ ko doon dañ ko dañ ko war a jooyanti. Mhm. Euh, teg ko sur la table waxtaane ko parce que tey justice dëkk bu amul justice yaakaar naa développement ba ca war a am sax du ko am ndax tey bu ñuy les investisseurs tey bu ñuy njëkk xool baromètre ba nga xam ne. bu ñu balaa ñuy dem ci dëkk baromètre bi ñuy njëkk a xool moom mooy ndax dëkk bi c'est un pays stable ndax am na justice. Mm-hmm. état de droit ndax tey état un état de droit. ndax tey bu ñu ñëwee ci ab réew. tey bu ñu fa investir seen alal am fa ay jafe-jafe dinañ xool ndax tey justice réew boobu nekk na en mesure pour fajal leen seen i seen i seen seen seen soxla. Mm-hmm. donc justice dafa nekk la nga xam ne tey jii nii képp ka nga xam ne mos nga dund injustice da ngay da nga koy naqalu ci sa biir xol ba nga xam ne. tey bu ñu la bàyyee boo deful ndànk nga fajal sa bopp. Mhm. te dans une société qui bien organisée nit war na a fajal boppam. mais loolu li koy li koy li koy li koy li koy faj moom mooy vraiment ñu am des acteurs de la justice ya nga xam ne ragal nañ yàlla. Mhm. des acteurs de la justice ya nga xam ne lépp lu ñuy def dinañ ci xool seen borom mais itam dinañ ci xool seen bàmmeel. mais itam nga xool tey jii nii li ngay teg nit ki ndax yow bu ñu la ko tegoon yow di ko nangu. Mhm. man dafa am la nga xam ne man dund naa ko ak justice. am naa fi ay jafe-jafe amoon naa fi ay jafe-jafe ak benn commandant d'escorte ñu jaay ma doole. tey ma injustement sosal ma. non ñoom moom kenn du leen laal. <laughs> sosal ma ba pare gendarmerie police ko jotel ñoom ñëpp dañuy def. sosal ma ba pare ñu def au niveau de la justice. ma mm-hmm. dugal sama plainte mm-hmm. Mm-hmm. loolu dama ko dund c'est donc yooyu il faut il faut que ñu ko fi jële mais mais lu ko fiy jële moom mooy parce que am na benn jour Barthélémy Dias wax benn wax ju am solo yaa ko Sénégal. qu'un magistrat ou bien qu'un commissaire ou bien un policier ou bien un gendarme bu ñu leen tëj kaso mais parce que tey bu ñu fekkee tey les acteurs de la justice ak les GPJ e ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi mm-hmm. bu fekkee sanction du am à leur encontre mais ñooñu dañuy am fitu def lu leen neex parce que ils se sentent protégés mm-hmm. mais tey bu leen leeree na ñoom ak grade bu ñu munti am ak responsabilité bu ñu munti yor man man ak ñoom ñooy bokk yem bu ñu fotee dañ leen di. mais on a vu un bel exemple li xew Kaolack fan yii passé euh, les deux officiers de police qui ont accepté l' argent d'une dame. et leen dañ leen relever voilà Kébémer leen relever ci saa si. yu mel noonu c'est bien. ba tey ñooñu c'est des c'est des c'est des agents subalternes ah, parce que tey jii nii plus les responsabilités augmentent plus tey jii ñoom ñu am. fitu def benn zèle bu ñuy doxee ñu am zèle bu ñuy ak abus de abus de pouvoir. abus mhm. d'autorité bi ñu doxee ba nga xam ne tey jii nii des fois tu te rends tu te demandes que ni kii est-ce nañu teg ko ci place bi place bi ñu ko ñu ko teg. donc loolu bokk na bu ñuy bu ñuy càmbar bu ñu ko yemalee rek ci wàllu justice. Mhm. nañ dem ba ci auxiliaire de la justice yi. ñu commencé ko ci comme ci ci ci brigade de police yi ci ci ci ci brigade de gendarmerie ni ñuy defee seen PV d'enquête mais ñaata enquête nga fi dégg ñu ne la dañ ko dañ ko modifié. Mhm, mais parce que le juge bi nga xam ne tey moom mooy àtte bi nga xam ne tey moom mooy placé le procureur bi pla bi placé en mais tey bu ñëwee dans un premier temps le document le PV bi ñu ko bi ko bi ko bi ko gendarme wala police jébbal rek ci lay ci lay sukkandiku. Mm-hmm. dëgg la wala lu dëgg tey bu fekkee dañ ko manipuler tey du ci xam. mais li ngay wax ni sànq Clédor Sène il a dit lu mel noonu. ci le rapport euh, maanaam certificat de genre de mort bu bu bu Fulbert Sambol Didier dafa am lu ñu ci yokk loo xam ne ki def autopsie ki ki yoroon koom yokk ko ci donc ay manipulation la yoo xam ne. mën nañu voilà exactement. y a des mais comment contrôler ces manipulations. te mm-hmm. tey di le début de la procédure judiciaire foofu lay tàmbalee. waaw waaw waaw foofu lay tàmbalee mais bëri na tey jii nii ay nit ñi deew néew doole ya nga xam ne tey jii nii justice xañ na leen seen ak mais justement Ousseynou parce que dañoo amul les moyens mais justement ñi néew doole ñoom la ñuy ñooy subir loolu. mais les hommes politiques par contre ko ci laal mu porter presse. non jug jëm ci kaw yéen aussi problème ngeen. waaw mais non xam nga homme politique tey nii il a les de se défendre. tey peut-être que sax xëy financièrement xaw na tane. wala mhm. boog tey na tey jii des nga xam ne ils sont dans les tey boo ko naree sonal mu activer leen coow lu bu commencé jug ñee daw. loolu laay wax en fait loolu problème la aussi mais le sénégalais hmm. laa bëgg a wax. tey réforme de la justice bi tey man fi ma koy xaaree moom mooy le sénégalais lambda bi nga xam ne yorul ñaari dërëm yu mu jëlee avocat kooku tey. nan lañu war a mun a def ba devant la hmm. justice. ñu bañ ko xañ ay àqam ak waaw ay àqam ak ay yelleefam. merci beaucoup. donc loolu am solo la nga xam ne tey jii bu ñu koy càmbar waruñu yem rek ci justice dañ ko war a ceinturer. du début de la procédure jusqu'à la hmm. fin bu ma jógee ci loolu balaa may terminer. oui pour man assises yooyu warul yem rek ci justice bu ñu paree ci justice nañ dem sur les assis générales de l' administration. Hmm. mu aw suñu administration moo feebar.